بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soppe imam malik rahmatullahi alayhi ñoo nga am mbégte kontaan te del siwaat ak yéen ci beneen jataay ci jataay Muwatta imam malik ah jataay bari ñu génn nag waxtaan nañ ba jeexal lii di jaar-jaaru imam malik rahmatullahi alayhi bokk na ca lañ fa génnee rek ci ay point yu am solo mooy imam malik daal wane na ne xam-xam aw yoonam gudd na lool te yombut ndax téeram boobu di Muwatta mi ngi ko taalif bind ko ci ñeent fukki at wala boog ñeent fukki at ma ngi koy jàngale di ca dollee ka am lum cay génne waaye tamit jàng nañ ci jaar-jaaram yooyu ni xam-xam daal garab guy law la ku nekk ak branche ba nga xamante ni bii mën nga ko caa jàpp mu defar sa àdduna defar sa àllaaxira imaam Malik na moom bam banqaas yéem ca jàppoon ñaar la muy fiq ak xadiis ci yooyu ci la xam-xamam gënoon màcc moo tax feeñ na lool ci téere bii di Muwatta tey na xam naa balaa ñuy dugg ci téere bi jàng axaadiis yi comme que waxtaane nañ imaam Malik ba pare waxtaane lu jëm ci téere bi tey balaa ñuy yegg ci chara ahadit yi dañu bëgg a def jataay boo xam ni dañ ciy waxtaane fadlu talabil ilmi ngëneelu sàkku xam-xam ndax xam-xam moom ah waxtaane ngëneelam moo waroon sax jiitu ci jataay yi yépp waaye fii ñu ko dugal tamit dana fi am njëriñ ndax commencé guñ téere bi dana nekk ak soññee ci ñu beesalaat yéen yi xam ne sàkku xam-xam des ko yéeneel dana ñëw ci waxtaan wi ah ñu xam ne tamit xam-xam daal moom mooy teraanga ji gën a màgg ci àdduna ju suñ boroom yàlla di joxub jaam wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima suñ boroom yàlla wax ko ca suratu nisa ni ko maa la xamal loo xamul woon yaakaar naa ko xool attey julli attey acc koor njaay ak jënd atte yu bari yooyu yépp kenn moo ko jàngale muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tey mu nekk téere yoo xam ne ku ci dugg danga xuus ba sonn te doo ko jeexal atte yi waaye tamit lii di alxayb wax loo xam ni dafa fàddu lu mel ni àjjana ak sawar nga di wax nga di ci waxtaan waxtaan ci malaaka yi loolu lépp sallallahu alayhi wasallam daf koy def ku ko xamal suñ borom yàlla moo tax nee na ko wa kaana fadlullahi alayka azima ngëneelu suñ borom yàlla ci yow màgg na de képp koo xam ni tamit am nga xam-xam yëgal ni ngëneelu suñ borom yàlla ci yow rëy na lool ndax jox na la loo xam ni ay million doomu aadama ñoo ngi koy bëgg te amuñu ko kon bokk na ci matuk buntu boobu nit ki continuer di suñ bor di sàkku ci yàlla mu dolli ko xam-xam moo tax alquran wax ne ko waxul rabbi zidni ilma boo amee lenn looy ñaan daal ñu dolli la ca ba nga giijal moo di xam-xam du alal du juddu du leneen lu mën di doon rek la ci ëpp solo ci sa dund nga ñaan ko moo di xam-xam ndax xam-xam lépp lu baax kat moo ko jagal ñu xam ne tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ci xadis ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslim xadis boobu ibnu maaja génne na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sàkku xam-xam daal bépp jullit war na ci yow jullit bu nekk war na ci yow nga sàkku ji xam-xam sol sa dàll wëri xam-xam sol sa daal dem ci xam-xam xam-xam dañ koy fekki moo tax imaam Malik mas nañoo ñëw ci moom andil ko buur ca buur yu ndaw ya ni ko dafa ñëw midin wala bu ko dafa demoon màkk aj yi jaar midin ñu ngi dal ci palaas sàngam buur bi nee na nga ñëw fekk fa doom ya jàngal ko mu ni déedéet xam-xam moom yuttaa la dañ koy dañ koy wuti de xam-xam fu mu nekk des ko fay fekk waaye moom du fekki kenn xam-xam du dem ci pale waaye kaca pale mooy mooy génn wuti ji xam-xam ndax lan xam-xam faridatun ala kulli muslim faratay jullit bu nekk la faratay jëmm sax nag kon bunt boobu war nañ ko bàyyiwaat xel xam-xam mooy yoon wi nga xamante ni bii moo la yóbbu ci yàlla xam-xam mooy yoon wi nga xamante ni bii moo lay dugal àjjana salaa sallam nee na man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna hadis boobu imam muslim génn na ko ci téeréem yéen tam saa sallam nee na képp ku sóobu ci yoon woo xam ne daal sàkko xam-xam dong nga cay def nee na suñu borom yàlla sóob la ci yoonu àjjana kon ku tegee ci yoonu xam-xam di ca xëy di ca gontu xamal ne yaa ngi ci yoonu àjjana kon nag kuy dox ci yoonu àjjana warloo am lenn loo cay ragal kon képp koo xam ne yaa ngi xëy ci xam-xam santal yàlla xam ne yaa ngi ci yoonu àjjana kon nañ fexe ba soobu gi am rek waaye yegg gi moom addis bi garanté na ko waaw ku soobu rek yaa ngi ci yoonu àjjana kon li am solo mooy ñun ñëpp nañ soobu xam-xam mooy li nga xamante ni bii mooy li gën ci doomu aadama li muy am doomu aadama li muy am lépp xam-xam moo ci gën imaam imaam ali radiallahu anhu mas na wax doom ja ni ko yaa bu nay yow sama doom al ilmu xayrun min al maal xam-xam moo gën alal de xam-xam moo gën alal li ann al ilma yaxrusuk mu ne ko xam-xam daf lay wattu di la aar wal maalu taxrusuhu bu dee alal nag yow yaa koy garde xam-xam moom daf lay garde di la wattu di la aar waaye bu dee alal yaa koy garde de ku nekk sa alal yaa koy garde moo tax boo demee ci bureau bi ñuy denc denc alal ni gis ñoo xam ne lañ leen di fay ñuy xëye ko gont luy seen liggéey wattu alal ji ba du sànku wattu alal ji ba dee su ko sàcc kon alal noonu la baaxoo waaye bu dee xam-xam nag déedéet xam-xam moom moo mooy ñëw di la wattu di la wattu mooy lay wattu ci réer gi mooy lay wattu ci lépp loo xam ne def na la dana la ror lor ci àdduna ak àllaaxira la feeñ ak la nëbbu nag comme nim ñëwee ci adkaaru sabaaxi wal masa ñaani suba ak ñaani ngoon saa sallam nee na ku koy def dara du la lor moo tax xam-xam magasin la boo xam ni soxlawul kenn di ko wattu waaye loo ca joxe tamit doo ko ña doo ko ñàkk moo tax abu isxaq al ilbiri waxoon nan wa kanzun la taxaafu alayhi lissan xafiiful xamli yujadu xaytu kunta nee na xam-xam moo ngi noonu nekk màngasee boo xam ne daal kenn du ca ragal sàcc bu ca dugg sàcc fa waaw waaye tamit xafiiful xamli màngasee boo xam ni foo jëm mën ko yóbbaale yujadu xaytu kunta foo nekk rek mu nekk ak yow loolu xam-xam moo mel noonu waaye bu dee alal àdduna melut noonu ndax diisaay ba xam-xam moomu yazidu bi kasrati l infaaqi minhu magasin boo xam ni loo gën di joxe muy gën di yaatu di gën di bari wa yanqusu in bihi kaffan shadatta waaye boo téyee sa loxo rek mu dal di wàññeeku loolu nag daan joxe misaal xam-xam moom ku koy joxe ku nekk ci àdduna joxe ga day jur ak yokkoom loolu nag mën nañ cee jël misaal yu bari waaye comme que ci imaam Malik la ñuy wax ñu jël ci misaal ci imaam Malik imaam Malik a ngoog ak màngasee xam-xamam ba ba mu bindee téerim bi ba na gën nit ñi di ci tibb mësul a jeex day gën di yaatu kay nag ndax at mii ñuy waxtaanee nii ci téerim bi am na ñoo xam ne ñoo koy sharaa mën naa am balaa ñaar at ñett nga gisaal ko ci marché bi fukki sharaa yoo xam ni wala ñaar fukk wala téeméer yoo xam ne mosoo ko gis kon ma nga yokk xam-xam baa nga yokk de màngasee baa ngay law di gën di yaatu ci àdduna bi saa yu xëyee tamit dugg kër goo xam mosu faa dugg kon yaziidu bi kasratil infaaqi minhu màngasee boo xam ni loo gën a financé loo gën a joxe dépense mu gën a yaatu waaye wa yanqusu in bihi kaffan shadatta xam-xam moo moo baaxoo nii boo ko joxe wut day gën di wàññeeku mën na sax dem ba bañ laa jariñ loolu yaakaar naa wax ku topp waxtaan yi déggoon nga ci déggoon nga ko ci qissa ibnu ibnul qasim nekk ndongal imam malik li gën a mag nee na bu masaan ñëw ci imam Malik toog day bind def ci ay kayam xaar ba ay moroomam ñëw buñ ko laajee mu jox leen ñu copier lépp jëlaat xam-xam bi ci moom waaye nee na moom saa yu amee ngànt ba téewul ci xalqa imam Malik nee na bu ñëwee kum laaj doo ko nangoo jox la nga bind dañuy mel ni bëgguñoo tasaare xam-xam bi waaye gis nga moo tax Ibnul Qasim ñëpp dégg nañ ko fépp ci monde bi waaye ñooñee ko doon def boo demoon sax kenn xamu ci kenn kenn maanaam xamu su ci kenn wala boo kenn siiwu ci comme ni nga xamante ni bii noonu la Ibnul Qasim siiwee kon xam-xam noonu la baaxoo waaye xam-xam buñ delloo tamit ci kii di imaamu Shafii tegoon na ko place bu rëy rëy wax ci wax ju rëy waxoon ni talabul ilmi xayrun min salaati naafila imaamu Shafii nee na sàkku xam-xam daal moo gën julli ji jullik naafila waaw jullik naafila mu ne sàkku xam-xam moo ko ëpp doole fuuf ëpp ko yiw waxaat ci beneen palaas mu ni al ilmu ibadatun nee na lii di xam-xam daal jaamu yàlla rek la di ci xëy ko gont xëy ci jaamu yàlla la kon ndax jaamu yàlla soxlawul ay mbir yoo xam ne danañ ko gunge lu mel ni sellal jëf axakay kon yooyu nañ ko jël ñun ñi bëgg a ubbib téere di ko jàngi xam-xam la ñuy jàng kon ñoo ngi jëm ci jaamu yàlla jaamu yàlla nag daf caa bokk boo ca jëmee nga fexe ba amal ko yéene ndax innamal amalu binniyaat jëf daal soo bëggee ñu fay la ca danga koy lay taayale yéena ju sella sella yéena ju baax moo tax bokk na ci li nit kiy jëkke yéene foofu mooy ixlaasu niya fexe ba sa yéene sell lool alquran junj na ko wama umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diin suñ boroom yàlla nee na moom daal koo koy jaamu fexeel ba lii di sellal na ca am boo koy jaamu sellalal jaamu ga waaye tamit mu nekkoon nit ki commencement jàngam commencement yëngoom ci xam-xam ànduloon ak sellal mën na koo dab waat de loolu tamit lu jar a xam la ci bunt bi soo commencé jàpp ne ba nga commencé sellal gi baaxul woon ah mën nga koo dab dabal sun sang ba Sufyaan Athawri nga xamante ni bii muhaddis bu mag a mag la imaamu Shu'ba nga xamante ni bii kàngam la ci hadis daf daan yéemu ci Sufyaan Athawri ak num jekko woon xam-xam nee na talabna al ilma li gayrillah fa aba illa an yakuna lillah nee na ñu day ba ñu sàkku xam-xam nekk ay tut tànk dañ ko doon sàkku rek ndax nit ñi ñoo ngi sàkku xam-xam comme ni mu amee suñ jamono jii rek da ngay juddu ne ci njàng mi commencé dal ba continuer di traverser ay classe ba kera ngay am sa bac ba am sa magistère am sa doctorat boo moytuwut nag noonu mu nekkee dund koo xam ne noonu la adduna bi demee lii di yéene dana naaw du fa am yéene sàkk xam-xam doo ko am de ak a jara moytu koo xam ni daal def nga ci sàkku xam-xam ay at te gis ni sa yéene dëgëragut waaye ngal la defaral sa yéene ba mu baax imaam Sufyaan Thawri nee na man de sama commencement yéene ji baaxul woon waaye ba ma demee ba ca kanam defaraat naa yéene ji kon nan defaraat toogaay waaw yéene sàkku xam-xam moom ban yéene la lu jar a xam la xam nga kuy julli am na yéene booy def say dem màkk am na yéene booy yéene booy yéene ci xam-xam looy yéene loolu imaam ahmad moo ko tontu nee na xam-xam daal dara melul ni moom ci koo xam ne sa yéene baax na ñun ko abu abdillah waaw yéene naka lay baaxe yéene xam-xam moom loo yéene ak boo ko yéenee nooy xamee ne baax na mu ni da ngay yéene raful jahli an nafsihi nit ki day yéene lii di ak réer na ko dindi ci boppam ba mu set wecc waaye wa an gayrihi lii di réer na ko jële ci pénc mi na fexe daal bu mu réer bu mu réeralaate bu mu gis kuy réer sax nag ndax xam-xam moom daa ñëw pour ñëpp gindeeku tegu ci yoonu siraatul mustaqim kon loolu la jar xam la kon yow muy jàngi xam-xam sa yéene bu njëkk mooy fexe ba yow nga dencik réer yow waaw yow yaay projet bi gën a mag moo tax imaam imaam Malik daana wax ni man su may sàkk xam-xam sama bopp nag moo tax waaw loolu noonu da ko wax lu bari ba may sàkku xam-xam sama bopp moo taxoon mu jóg xam nu may jaamoo yàlla xam nu may génn ci réer kon loolu lu jara dundalaat la waaye tamit nit ki sàkku ci xam-xam na ànd ak al jidd wal ijtihaad na ànd ak pasteef na ànd ak jom ak fulla ci li nga xamante ni bii moom lay sàkku ji alquran nee na yaa yaxya xudil kitaaba bi quwwa yow yaxya jëlal téere bi waaye nag bi quwwa ànd ceeg pasteef ànd ceeg jom ak fulla mujahid noonu la ko firee am ñu wax ni moo di al ilmi bihi wal xifdi lahu wal amali bi xam-xam daal soo ko jëlee muy téere yi ne na fexeel ba xam la ca ne fexeel ba mokkal la ca ne fexeel ba jëfe ji la ca nekk waaw téere bi boo ko jàngee fexeel ba li ci nekk nga xam ko li ci nekk fexeel nga mokkal ko li ci nekk fexeel nga dem jëfe ji ko kon am nañu firee laay ji noonu yaa yaxyaa xudul kitaaba bi quwwa xam-xam nag comme nañ ko junjewoon ci commencement jotaay bi bu nekkul ci pénc moo pénc dara jaratu ko dara jarul dëkk fa ak luñ ko rafet rafetal luñ ko taaral du tax mu taaru tabaxee luñ bari bari du tax mu jariñ dara xam-xam mooy taaral am réew mooy taaralu dëkk dëkk bu la ko ëppale ëppal ab taar moo tax midin ba salaa salaam door a ñëw gàddaay si ba ci jamono Abubakar ak Omar ak ñëw seen gannaaw sax nekkul woon benn centre boo xam ne wala benn capital boo xam ne lii di tabax yeeg yooyu demee woon na noonu ñëpp xam nañ ni ñii ñu doon xeexal muy romain yi ak perse yi dañ leen daan ree sax ci wax ni ñoom seen capital boo fa demee da nga yaakaar lii du capital dëgg la de ci côté ay tabax demewuloon noonu waaye xam-xam ba xam-xam ba fa doon jollee booba de moom ah yaakaar naa àdduna ba tey jii ñëpp a ngi ci tànk ci leer googu nga xamante ni bii moo di xam-xam ba doon jollee ci midin kon loolu mooy dundal ab dëkk ab dëkk xam-xam mooy tax mu avancé moo tax abu isxaq al elbiri wax na ko ca qasidaam ga wa ma yugniika tashyidul mabaani ida bil jahli nafsaka qad hadamta nee na waaw yow ngay tabax ak yëkkatee étage ba njëriñ la la amal bu nekkee bu nekkee ni yow xamulu dara sa bopp bi dara nekku ci mu ni kon tabax yi lu mu lay jariñ ndax doomu aadama moom moo gën a for mu gën a for ay étage ak i tabax tabax sax buñ ko fi def ci àdduna ngir doomu aadama mën cee dimbandikoo pour jaamu yàlla mbaax la te jaamu yàlla googu ci xam-xam dong la mën a tegee kon nga gis ni liñ la indil ci àdduna yépp pour mu yombal sa jaamu yàlla la te jaamu yàlla ga la koy lal moo di xam-xam kon boo amul xam-xam defagoo dara de waaw defagoo dara defagoo dara kon xam naa foofu la ñuy taxaw di jégalu nag ci ñàkk a waajal gi bu baax a baax ci dars bi xam naa loolu mooy li jot a jot a jàppandi ñàkkul ci biir waxtaan yi incha allah bu ñu amee tamit. hadis yoo xam ne danañ junj ci bunt bi ñu yokk ci loo xam ne jot ñu ko woon wax fii wasalaamu aleykum wa rahmatullah